moom ku ko xam-xam ko xaritoog artiste yëpp ma ngi noonu xolam neexul ma ngi jooy très triste mën a suuf sax taxaw léegi euh, xolam ko artiste yëpp mënatul tenir mu ngi jooy bokk na ci njëkk ñëw fii di kër euh, Papa Thione ci Ouest Foire bokk na ci ñi fi njëkk a ñëw ndax bi mbir mi xewee rek ñun biñ fi ñëwee euh, d'ailleurs fi lañ fekk méttee métti waaye yàlla suñu borom nag moom lii laay mbiram soxla rek soxla dafay ñàkk voilà ñu ngi koy calmer nit ñi ña ngi koy calmer mmh. saare wa ñu koy calmer bu baax dèjà dëgg la nee na ko yàlla lu mu def dafa am lu tax mu def ko dégg nga nee na ko yi génne li muy liggéey ba pare ñun ñoo ci des. dégg bàyyi nañ feex doomam. dañ koy ko xoolee doomam rek. dëgg la ndeysaan dëgg doom ko xoolee doomam Wally Seck coon Seck mi bi demul. incha allah il est fort le gars. te doom dina taxaw ñu allah. dégg li nga xamante ni moom la koy wax pour dissuader ko. léppam la ci moom. dégg nga ndeysaan la ci moom. ñëpp xam nañ ko ne ko Papa Thione demul ndax doomam ma ngi fi Wally Seck te taxawaay bi nga xamante ni daan na ko taxawee moom baayam mm-hmm. ki nga xam ne mooy doomam di euh, Wally dina ko taxawoo kàddu yooyu la ko waa ji dénk pour mu euh, mën a tenir mën a tranquille même si yomb waaye daal mu ngi dana nga bàyyi xel bu mu dem sa fan léegi du kool a dem de léegi ah? ah non day métti de moom kii moom waaw baax na xam nga li ko ndox euh, ñëpp jàmm yéen ñëpp jàmm ci ñi njëkk ñëw tey fii ci Ouest bi nga yëgee nouvelle bi ndax ñun bi ñu ñëwee fii lañ la la masaw li nga moom lañu bokk Papa John moom Papa John ñëpp la c'est pas évident mais tamit yàlla suñu borom bu soxlaa bu soxla day ñàkk.